abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir door su nekk ay xibaar yu wér te mi ak ci ngeen jëf bu njaab yàggee nga war feeñ taala toj gi ñu defoon université Cheikh bu Ndakaaru ci manifester yi fi amoon fan yi la génn ñi ñu njoxte ne ko def l'observateur nee nañu am na ci ñoom ñett ñu ñu jàppagum ubbil yéene bi gars yi commissaire di waa police bu point ya e ñoo lëkkaloo ak gendarme yu brigade de recherche ba jàppagum ñett ci ñoom ci ñett ñooñee ñu jàpp di leen tuumal ne seen loxo génnul ci li caxat-caxate yoon université bokk ci manifestation yi bi leen alkaati di jàpp dañu leen a infiltré kenn ki dañ ko fekkoon mu sol ab kagul yoro gourdin ki ci des ay lance-pierre la ñu fekk ci moom moom l'observateur mi ngi ñuy xibaar ne démb ci altine ji am na benn néew étudiant bu ñu foree ci plage bi jàkkaarloo ak université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru Ndar di Saint-Louis Source A mi ngi ñuy wax lu doy waar lu fe xewoon ci jamonoy manifestation yi di ay nit yu dem ci daara yi jox leen xaalis ñoom ñu jox leen ay taalibe taalibe yi wàccoon ci mbedd yi di fori xeer di ko ñu doon manifester ñu bari ci ñoom force de l'ordre yi jàpp nañ leen ginnaaw bi ci lañ leen bàyyi waaye sëriñi daara yi leen yoroon ñoom mise en demeure nañ leen blocus gi ñu def Ousmane Sonko ca këram ga ca cité kër góor gi libération ne nañu avocat yi Ousmane Sonko yi bind ba jébbal ko premier président bu cour suprême li ñu bëgg moo ñu xiddi Ousmane Sonko dindi blocus ba ca këram téléphone portable am ordinateur mag bu prom yi ñu tey ñu delloo ko ko bàyyi ko it muy dox itam di dem ak dikk ni mu ko neexe ñu dem ci journal Le Mandat xooli fa kàdduy leeral yu fa dudu ko yëkkati li ñu koy tuumal moom ministre dudu ka ne réeruwul ak Ousmane Ousmane Sonko moom ak Ousmane Sonko dañoo am ay connexion journal bi nee nañu duudu ko weddi ko ba leeral li tax moom ak Ousmane Sonko mënuñoo déggoo mënuñoo juboo nee ñeenti mbir moo ko féewale ak Ousmane bi ci njëkk moo di bokkuñu parti politique beneen bi di mooy li Ousmane Sonko bëgg jël ab vilam di Ziguinchor bëgg ko soppi ak collectivité rurale loolee du ko nangu en tant doomu Casamance ñaari ca des duudu ko nee mbiri famille ak mbiri xeet xët xët am na coalition yeeyu askan yi mën a wanaas moo waral conférence des leaders bu coalition bi def ab communiqué démb di ca fàttale Khalifa Sall ak consort charte fondamentale bu coalition bi wax ne benn membre waruta dem di wutik déggoo ak régime bi fi nekk fàttali nañu ne charte boobe membre bu bokk ci coalition bi bu ko jalgatee dinañ ci def taxawaay bi war journal Les ko ak Walf Quotidien gis ne waaye yeewi Khalifa Ababacar Sall la ñuy menacé journal Tribune di ko dëggal ci xëtamu njëkk li mu bind moo di Khalifa Sall compagnie yu wuj ji ci dialogue bi yeewi askan yi ñoo ngi ci seeni tànk ngir dàqi leen ci coalition bi dialogue dialogue boobee waral coow leeg mbambuli journal ne fu mi ngi ñuy baaxe ay mbóot ay secret yu mu ci for commission politique bi ki ko war a jiite ba léegi kenn tànnagu ko ndax gaañi professeur Kanté ci moom la ñu woon waaye finalement moom professeur Kanté dafa indisponible ñu tànn Seydou Nourou Ba am ñenn ñu fara ci opposition bi ñu ne doyu leen ki ñu bëgg jamono ji nag lay fone nañu mooy Serigne Diop téemoña dolli ñu ci ne ñi war bokk ci commission politique bi déggoo nañu démb ci lan ñu war a waxtaane suba ci àllarba ji ci la ñuy tàmbali seenub liggéey war koo def ko mode fast track laata wen 25 juin l'observateur xëyee ci xët mu njëkk xiini ni miine gi muy ne moom la président Macky Sall nekkee xii ni miine gi moo di ndax président Macky Sall dafay teg lépp fi suuf ngir jàmm ak dal ci réew mi wala ndax dafay doxal yoon dem ci ba jeex ngir rétablir état de droit ci réew mi moom jiit réew mi di Macky Sall mi ngi waajal ab remaniement ay coppite ci gouvernement bi anki dina moo joxe xibaar bi ba tegal ñu ci ne loole ginnaaw dialogue national bi lay doon li ci président Macky Sall jublu mooy blindé gouvernement bi blindé ndekete du fépp lay dox ku ko weddi laajal Biram Bopp Pape Biram Bopp nee nañu ab